mbirum Lamine Diack. mbiru Lamine Diack nag metti na ma lool. Hmm, si naka. ndax man xeex bi daf ma fekk. Hmm. ma xam Lamine Diack un homme généreux. Hmm. mag la paa boo xamante ni dafay bëgg xale yoom da ngay xam ne am na lu ñu gëm. te li ma wax dama ko xam. ndax da ko fekkee. dama ko fekkee mais ci politique bi ñuy wax dévolution monarchique du pouvoir. nga xam ne bokkoon na si ñi nga xam ne dañ ko doon xeex. dama lay wax tey benn affaire nag tout le gouvernement y compris Macky Sall. devrait se rendre à Paris pour rendre hommage à ce vieux et soutenir le vieux. au a paa bi. Ah, ni mu leen jàppale jàppale ñu ñëpp ba mu jeex teg sans exception. pour que wàdd parte kii tey xam nga bu nekkoon bu ñu fekkoon euh, bu fekkoon ne Macky Sall dafa nekk président. moom moo war a nekk nekk président d'honneur bu dee fay nit ki rek contribution bi mu apporté ba tey wax Ablaye Wade jóge fi au pouvoir. kon gars yi naar bi xorom. non kenn parce que paa bi deret bi PS moo si nekk. Hmm. parti socialiste moo si nekk il faut faut il faut pas loolu gars yi obligé fàtte ko. Hmm. mais ci xeex bi ñu doon xeex bool c'est-à-dire que xamul kii parti socialiste la bokk kii diw la bokk. c'est-à-dire jël na force jël xaalisam jël dooleem yépp def ko ci ngir ko tey kii nekk ci pale bi tey nekk. mais delloowuñu naar bi. xoromam xoromam. la mu leen liggéeyal moom. Mm. te ba tey amu ci kenn ku xamante ne boo fi jógee dem France di ko seeti. Mm. si ay doom ay doomam même bu ñu bindee lettre pour rencontrer le chef de l'État dañuy bañ. à ce point. non si à dire gis nguur bu manqué reconnaissance nii moo tax man man moo tax moo tax moo tax ku yóbbu def attention bis boo nekkee si guute la ngay xam. Mm. mais tey ji dama ne la déggoo li ma la wax. toute la république assemblée nationale au conseil laa la wax. ñëpp dañoo waroon présidence tous heure bi woon na fekk ñu jël avion yi dem. ñoom euh, wàllum diplomatie sa entre les deux états sa waroon a tax affaire yi. du demee nii bu doon Ablaye Wade lay Lamine Diack ñu nekk fii ba léegi. waaw man xam naa loolu. mais nag Macky a peur des des des des hmm? ah mais xoolal réew mi ñu ko ñu ko yor yëpp. kon daal dafa dafa am xaw am seen complexe. dafa am amul dafa xaw a xaw am. Hmm. il est l' ambassadeur des étrangers au waaw seetlu neen ne léegi fu mu toll nii firme française yi ñoom bëri neen fi. non dama dama amul loolu. ku yor Sonatel bien que yàgg ku yor orange. xam nga publicité du France. si micro bi ku yor terre bi. France te il paraît que. xaaral kay ma wala xaaral ma wala rek. Mhm. Alstom la. jëndee mhm. une société en faillite. Mhm. ñu dem signer ko pour terre. yoo xam nga ne terre bi ni ñu ko tabaxee sax. a enterrer tout le monde te préparé wuñu ko. te ñoom dañoo waxoon ne dañ koy joxe sax. non dama ko non dama ne la dañ ko jox Astrom Astrom <laughs> sous-traité ko. Hmm. bu ko fàtte lii ñuy tabax nii mooy lu mu tudd BRT bi. Hmm. te ñu jox ko matière SA. Hmm. société la la. français de française. lampadaire yi. lampadaire. yi ñu doon yi nga gis mooy lampe léegi boobu fond roche boobu. ñan la. finalement Sénégal lu ciy gagné. est ce boo demee port port ku fa nekk. France <laughs> Bolloré. du Bolloré moo fa nekk moo fa maintenant Air Sénégal est sous couvert de qui. France de la France est ce que boo demee aéroport di nga fa fekk box boxu Air Sénégal. déedéet fooy booy tukki ban ban box ngay jaare France bu France. kon est-ce que ñu nekkul na ay colonie française ba tey. non amul colonie on a c'est une francisation. francisation de l'économie de notre pays. parce que un pays. sous l'ère Macky Sall cest à pays ne peut pas se développer. te yow lépp luy indi xaalis c'est entre les mains des français bul fàtte ne pétrole bi bul fàtte ne gaz bi ak yëpp total la. waaw ñoom ñoo ko yor. léegi tey nag suñu agriculture ak suñu supermarché yëpp ñan ñoo fa nekk Auchan. Auchan ak kan ak yu xaw ma lan am na beneen bu génn. utile. ut ut utile xaw ma lan. Sidi Dia moom moom espagnol ñooy ko moom. waaye dee na moom non non non il faut ñoom ñoom jaay nañu fi ñu nekkoon yëpp. waaw jaay nañu ko Auchan ah, te ba pare espace boo gis mu nekk espace bu stratégique pour defee fa commerce Auchan lañ koy jox na nga xam loolu tey. te ñoo euh, te ñoo ba ñu demee Maroc sax Marocains yi dañoo am fulla ak fayda ne leen déedéet. non non xam nga bul comparer ñooñu. ah pourquoi pas c'est-à-dire non xanaa non man nag ça m'a fait mal au cœur su ma su ma jegee ne bu ñu comparé Maroc ak Sénégal xamu tax parce que ay nit ren comme ñun waaw moom laa lay wax c'est un de dirigeant yow nga yaakaar ne Macky mii dina taxaw ki ñu o fële nga xamante ni la ñu rey woon xaw ma français yooyu xaw ma si lan li ñu koy waxate woon ñoom fële. mooy ba ñu dajewee avec tous les chefs d'État. moo nekk euh, ba ñu kii nekkut ba ñu salfaañee yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. non mooy waaw ba ñi ñi rayoon rek journaliste yi xaw ma ñenn si mooy. xaw ma ñenn ñi rayoon Nice la de Nice la. waaw ba ñu demoon foofu di marche. waaw Nice la comment promenade de Nice. waaw ba ñu dem noonu chef d'État yëpp jóge fi di dem di marche nous sommes tous des. Charles Hebdo Charles yaa ngi koy waaw waaw xam nga xam ko comme ñoom ñoo mën a déplacé wu. alors que chaque jour il y a des milliers des milliers de sénégalais yooyu lab si géej. kon que ñoom tamit waroon ñu nekk ci leneen. kon sénégalais waroon ne wax kay nous sommes tous tamit. day euh, Lamine a fait dans ce pays. Hmm. man day xawma kan mais su ma nekkoon chef d'état Lamine Diack du fa nekk. cest à bu ma xoolee Lamine Diack ma xam ko man parce que man damay nekk ni ko ci nit damay wax dëgg te yàlla tax. Hmm. il peut on peut se tromper et on s'est trompé de combat. Hmm. en élisant Macky Sall. parce que lañ doon yaakaar ci moom gëm na kii il est né après les indépendances. comme loolu il va nous rendre notre dignité bafouée. comme mu neen wax ne ndeysaan dem si yàlla Sidi Lamine. que que Macky Sall président par défaut. non par par inadvertance. ah inadvertance d'accord démocratique <laughs> dire que loolu moo ñu dal ci Macky. avec avec tous les exemples nag qu'il faut dans ce pays et c'est malheureux. bu ñu demee tey toog foo xamante ni ne boo oh non mais c'est c'est grave boo gisee benn seex ab bi dee kii defoon accident ci oto oto camion camion militaire bi gaañ bi mm, mm, mm. mu ànd ak seexam seex bi di ko gunge mu gis nii seexam moom seexam nekk ci sukuraat mu dem hôpital bi mu dem du ko jël ci ci oto oto bi la deewee tey bu ñu tolloo foofu tey fii ci Sénégal jël ay milliards yi milliards amul lu ñu ciy def lu dul Marème Faye xëy suba dem di solol jabaru jamono faamu Guinée Guinée éco xaw ma la. bi. Euh, président Guinée bu bees Guinée bu bees pour vous dire à quel bi respecté wuñu sax sans compter maintenant parce que Sénégal li ñu ci war a wax dafa bëri ba nga xamante ni ne lépp sax mënuñu ko mën nañu ko def ci benn plateau bi neex na trop <laughs> en plus c'était tellement riche ba temps bi ñu mayoon sax jeex na bu yàgg euh, say dernier kàddu di lay jaay jëfal na kontaan nañ trop waaw li ma bëgg mooy li ma bëgg mhm. mooy li ma bëgg IPRES état bi formaliser lépp ki fa war a nekk directeur ñu indi ko ndax fu mu nekk nii dafa am ko xamante ni mooy mooy yor li ñuy wax provisoirement set boîte. Mm. te retraités yi nekk nañ situation boo xamante ni quel ko soit celui qui va venir en tout cas na fi nekkal pour retraités yi. mais jot na à ce que état bi quand même choisir kenn ñu teg ko fa mu nekk fi pour retraités yi maintenant maa ngi leen di gërëm yéen di leen sant. di gërëm seen groupe bi parce que lii groupe la di leen ñaanal yàlla Sénégal set di gën a yokk ci kanam. te tamit saa yoo leen ma soxlawee. ma mën fi ñëw. Mm. te maa ngi leen di gërëm aussi parce que sur sénégal yi fi nekk bëri na waaye dama gis ne à chaque fois bu sit benn situation amee rek di ngeen ma oo ma ñëw taxaw fi loolu nag ñaax la. pour que ma gën a góorgóorlu. Mhm. xam ne au moins am na fa xamante ne Sénégal yi teg nañ fa jërëjëf jëf. waaw amal nga njëriñ askan bi wala parce que say kàddu moom franchement am na solo bu baax euh, di gërëm aussi euh, euh, internet yu Sénégal 7 point com ñu la ñu suivre tout au long si direct bi nga xam ne tey yaakaar naa ne ils se sont régalés avec les propos du de de d'Oumar Faye de leeral askan bi di gërëm aussi toute l'équipe technique et rédactionnelle bi nga xam accompagné pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission La Grande Interview ak beneen invité. Merci.